Alaaji kàddu gaa ngoog jërëjëf ajaratu Betty Mbuub delsi nañ ak yow ci li nga xam ni mooy rubrique bu mag bi ñuy wax pajum cosaan ñu ciy daral Cheikh Bara Ndiaye boroom def gis war cee ànd ak moom waxtaanee lépp lu jëm ci actualité waaye it daal di koy tënk ci li nga xam ni moom lañuy tuddee tamit pajum cosaan tey nag am na sax ñoo xam ni wàll si nañ muy fan sa club bi indiwaaleel ko ab trophée mm-hmm. waaye loolu ca kanam lay doon incha allahu rabbi ndaxte kat ñoom dañ ne kat mi nañ ci Cheikh Baara Ndiaye borom def gis mm-hmm. Cheikh Baara Ndiaye borom def gis ñi ngi lay nuyu an rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma uxfiya lahum min qurati ahyunin jasaan bi ma kaanu yamaluun maa ngi lay fay laa ji saa joogu mbeng mm-hmm. di nuyu ñu bokkal palaato bi di nuyu waa Touba di jiital ci Cheikh Mouhamadul Mountakha xalifa général de Mouride di nuyu Cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu Cheikh Sidil Mokhtar Mbacke di nuyu Soxna May bintu Cheikh Sidil Mokhtar di nuyu Serigne Habib Diop Serigne Modou Haysa Mbacke Serigne Khadim Mbacke mu ibnu Cheikh Sidil Mokhtar ak Serigne Abdou Samad ak mbooleem njabootuk sëñ Baara Mbacke gépp di nuyu sëriñ Basiiru Mbacke xaadim awa ba ak sëñ Abdourahman Mbacke mu Cheikh Abdoul Aziz Baara ak euh, sëriñ Sidi Ahmed mu Cheikh Abdoul Baara Mbacke loolu nag euh, tey li tax ma nuyu ñoom ñàkk sëñ Baara yëpp mooy tey la anniversaire wu sëriñ Sidi Maxtaar Mbacke di fukki fan ak ñaar ci weeru koor la gane woon àdduna ca Mbacke Kajoor Mm-hmm. Euh, nekk bis boo xam ne nag euh, tey jii njaboot gi ñu ngi koy dundal foofa ci Mbàkke Kajoor di ko ci fàttaliku ak di ko ñaanal euh, ku jot suma kàddu rek nga ñaan sëriñ Sidi Maxtaar yàlla yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem te yàlla yéegee ko ci àjjana yu kawe te ñaanal tamit njabootam gi mu fi bàyyi suñ borom may leen ak wér te may leen ñu am kàttanuk liggéeyal lislaam nañ ko bëgg a liggéeyee comme ni ko seen way juróo doon defee di nuyu fan sa club Walfadjri yëpp nag ñoo ngi leen di nuyu di nuyu Moulay Hassis Guèye euh, ak maître Mame Adama di nuyu mboolem rek ñi ñuy seetaan ci biir réew mi ak bitim réew. jërëjëf fans club bi am na ci ñoo xam ni fans club groupe whatsapp lañ waroon doon parce que nekk ci télé di wax di téléphone ku mel ni commando Cheikh Bara Ndiaye borom def gis <coughs> macha allah ñu ñëw ak yow ci laaj bu njëkk bi li nga xamante ni bii xew na ci li nga xamante ni mooy penc mi xew ca Louga. muy soxna sa nga xam ni moo doon war a am doom néglisance am fa ba tax mu daa dee ñàkk kanam président ne na leer nañ dafa mel ni commencé nañu teg ay jéego ndax directeur hôpital ba tëbal nañ ko noo jàngatee loolu ak décision bi nga xam ni commencé nañ ko jël di liggéey bu am solo bi nga xamante ni bi président mi ngi koy def di dàqee noonu noo jàngatee mbir mi ci mbiri wàcce bi waaw euh, di njëkk mastaw rek njabootuk soxna soosu faatu di ko jàlle di ñaan yàlla mu jëggal ko amiin di ndokkeel di mastaw jëkkëram ak juram ak mbooleem rek waa Louga yëpp mm-hmm. ndax dafa am loo xam ne bu dalee ci aw ak nit dalut ci kooka waaye ci xeet woowu yëpp la dalandoo mm-hmm. ndax jamono bi ñuy wax naan négligence am na ba mu faatu am na mën naa am ku te mën naa am du mën amul mën naa am sax am na koo xam ne ma nga ëmb ba nekk ca weer wa am koo xam ne ma nga ëmb ba nekk ci ñaar ñaari weeram wala juróom benn weeram mm. war a dem ca hôpital booba war a jonjoo ak médecin yooyu mm. kooku kenn mënut a wax euh, ba du ba naa nelaw guddi ndax aw fitam da ko dul ci sax mm. fi mu waroon a dem pour mucc moom foofa dafa jàpp ne bu fa demee léegi loraange moo ko fay fekk mu nekk nag lu méttee métti mm-hmm. nekk nag loo xam ne tamit euh, lu mat a jàngat la parce que tamit ñu suñu nguur ak suñu dëkk bii ni mu tëddee bu dara xewee dañ koy waxtaane rek jàppe ko lu woyof te fekk lu rëy la hmm. lii fi am doo gis mukk mu am ci pays euh, occidentaux yi wala pays yi nga xam ne maanaam dañ ko organiser jox doomu aadama àqam ak gëddam hmm. maanaam problème bu amee dañuy da ngay taxaw face à problème bi nga régler ko di liñ ci décision yi nga ci war a jël mu neex mu metti nga jël ko hmm. pour lii ëllëg dootu amati parce que tey directeur boobu ñu dàq. muy Amadou Diouf. problème bu mel nii mas na ko am 2017 bañ limoncé ko. moom dàq ko moom. directeur ci négligence bu amoon ci ndaw su sant ba. ba faatu. directeur waaw bu ngeen seetee transectoire am moo nekk Amadou Diouf moo nekkoon Jannatul Mahwa. waaw bu dee moom ci personnel man ku baax la laa xam ci moom ak nit ñi loolu nga xam ci moom ku yaru la ab taalibe la waaye nag mbirum liggéey moom waaw ah, du ay affaire ay baax ak yarook taalibe dañuy xool boo xam ne lay liggéey loo yaa ngi koy def wala defoo mhm. mais en moom dafa mësoon naa am problème bu mel nii mhm. bañ dàq waaw bañ dàq mhm. la amoon tey jii mu demaat Louga problème bu amaat nii ñu naan dàqaat nañ ko loolu du loolu du ay wax. Hmm. dàq moom saa boo ko déggee ci nguurug Macky sàll gi en général. Hmm. buñ toogaatee tuuti sax fañ la dàqe woon fu ko gën a kawe gisoon nañ fi médecin euh, kii pharmacien ba jote woon ak gendarme ba. waaw lañ waxoon mooy dàq nañ ko. waaw police demal seet ko ba xam fu mu nekk tey. ak bañ ko dàqee fu mu nekk tey. dañ koy gën a hmm. yéegal sax ay niveau. commissaire ba commissaire ba Sangara waaw. yooyu daanaka du Mm. parce que bu dàq amee. waaw waruñoo dàq Amadou ngi ca yam waaye ab Abdoulaye Diouf Sarr ci boppam la ñu waroon a njëkk a dàq moom avant tout. Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Diouf Sarr moom na wax. ba xam mm. diirub mu nekk ministre de la sante ak tey. waaw ndax teg na tànkam foofu ci hôpitalu Louga ba. ndax teg na fa tànk mas na faa teg tànk rek. hôpital Louga ba. Mm-hmm. ah tegu fa tànkam. mun faa dem demu fa. hôpital Louga ba doo génnee image bu mu fa tege tànkam. Hmm. Amadou Diouf lu mu dëng dëng. lu mu lu mu mën a caaxaan mën a caaxaan. Mhm. ci kim nekk ci biir ministère am mu may ko espace mu mën a def loolu. waaw ah kooku lañ waroon a dàq. moom ci jëmmi boppam. juste ah, ça waaye ñun dañuy ñëw romb problème bi. Mhm. di ñab ñabal di jéem a def lu nga xam ne gis nga Amadou Diouf bu ñu ko dàqatoo nit mënut a continuer di nekk luga di fa continuer di dem. Mhm. il faut mu jóge fa. décision boo xamante ne moo ko naroon a jëlal boppam la état ñëw mbubboo ko mel ne. waaw moo ko moo ko. mel ne moo ko jël moo ko jëlal décision bi. Euh, loolu dong la te noonu la noonu la mës di demee. Mhm. li ci am solo nag te am te xaw cee lii mooy Louga. waaw dafa bokk ci zone yi nga xamante ne bu fekkoonte ne Macky Sall am na njariñ lu muy jariñaate waaw mën nañ ko jariñ ndax man seetlu naa ne Louga élection yu am. Mhm. Macky waabale ko. waaw da koy gañe. waaw waabale gi nag. Mhm. du hôpital yu baax du stade bu baax du tëli yu baax. man dafa am lu nga xam ne mënu ma ko comprendre gis nga bu doonte ne Sénégal gépp dañuy jaay. waaw Touba ak Louga lañ war a mujjee mën a jënd. Hmm? waaw. lu ah, am nañ maam Cheikh maam maam Cheikh Mbaye maam Cheikh moo jur alaaji jiiri. waaw stade tali pale hôpital lépp loo lu nit war a defal nit maam ba alaaji jiiri def na ko def na ko Louga. léegi yow bu Moustapha Diop ñëwee du njàng ma. du taxawaay ba du xam-xam ba du dara wëlisam lay indi jàpp gor ña di jënd bu élection jotee mu na mu nax-naxal leen ñu wateel Macky Sall bu noppee mu di leen foyee foo fekk ñoo xam ne dañuy topp ci gannaaw état di daw mhm. gis nga ay Kédougou ay dëkk yi gën a tàng gën a naqari gën a wow bu jotee Macky Sall da koy waabale waaw waaw parce que mhm. ña fa nekk dañ leen di xiifal maral leen mhm. duñ leen nangoo teg ci benn condition bu baax pour ñu ñàkk ñànki su ay su ay élection jógee. ñu jox Moustapha Diop oto bi mu def ci wëlis wi ñëw mel na kuy jëndi tabaski. wallaah kenn ku ne mu comp jox la ba élection jotee ngeen dem feesal ko dellu urne yi mu ñëwaat Dakar toog. Mhm. système boobu dong la am na ci loo xam ne tamit léeg-léeg day mel ne da nga naan nit ñi sax lii baax na ci ñoom parce que dana am ñu ci jànge mm. lu gën a gis naa ñu naan dañuy manifesté woog lépp bu dee dañuy manifesté wu. li ëpp solo mooy. Mhm. taxaw temm ci lu lu ko jege. waxuma la ay lu mu xamul de maanaam lu ko jege laa wax. bu mu amati. waaye xaar ba nit dee ba noppi ñu doog a jóg naan dañuy dàqaateeg dañuy lii loolu moo amul solo te itam nañ xëpp seen bëri ñu xool mhm. gis nga àdduna boo bëggul sa bopp kenn du la bëgg boo fonkul sa bopp kenn du la fonk dëgg la voilà amul benn raison boo xamante ne war naa mën a tax gis nga ñoom Moustapha Diop ñu mu tuddati am ah, euh, kii mii euh, Moustapha Diop xaw ma Louga waaw ñii ñuy politique ak ñoom dafa yomb trop dafa yomb politique bu yomb boobu mu leen di politiqueal nag waaw moo indi yomb yi di xew yëpp Hmm. voilà ba ci nii bii bi am ñu naan dàq nañ kee jàpp nañ kee dañ leen di nax dong bu doon dàq dafa war a am sanction bu waree am bakkan moo rot waaw te bakkan bi rotee hmm. keroog ku déglu suñu émission de stv yi xam ne Sénégal ci boppam moo am crise sanitaire crise sanitaire waaw crise bi moo fi am soo hmm. ko doon xool tey OMS dafa wax ne chaque dix mille personnes dañu war a am post de santé dix mille personnes yu nekk am na war nañ am poste de santé loolu Touba tey boo demoon mat nañ dañ naan mën nañ deux millions waaw la fa nekk mutul hmm. kon nga xam ne waroon bu ñu waree am deux cent poste de santé hmm. maanaam cinquante la ñu am yeneen cent cinquante postes yi fa waroon a nekk hmm. soo demee léegi ñooñu buñ feebaree bu seen bopp yi metti bu seen bët xonqee am na feebar yoo xam ne jërul dem hôpital léegi nag dañuy dem ñu poste de santé yu manqué yooyu day tax ñoom ñëpp dañu groupoo dem ca hôpital ba hôpital ba duñ fa fekk effectif bu doy. waaw loolu mooy indi pëccaxoo yu mel nii. Mhm. problème euh, kii santé bi fi am il faut ñu ñu jël ko au sérieux waaw mooy ñu teg ministère bi def ci xaalis poste de santé yi doy médecin yi doy recrutement bi doy. Mhm. kenn ku nekk euh, nekk ci li nga war a nekk su boobaa problème bii du am mais tant que ñi ngi jël benn dëkk bu toll ne Touba nga xam ne ñaari hôpital la am. waaw ci deux millions personnes bokk ko. Mhm. am na loo xamante ne boo nee boo nee dootu fi amatit da ngay wax lu la neex rek bu subaa bu subaa bu subaa lu mel noonu mën naa amat parce que tamit médecins yi dañuy dem ba dañuy toog. Mhm. parce que li leen di dikk mais président nee na nay leer. nay leer daal loolu lu ñuy jëf la du lu ñuy wax <laughs> voilà. lu ñuy loolu lu ñuy jëf la nay leer. lu ñuy mhm. jëf la lu ñuy wax. d'accord dégg nga. waaw réew mi moom méttiwaay gi dafa ëpp doole. Mhm. dëkk yëpp suñ tollee ci jamono jii. ñi ngi wàññi dund gi parce que ramadan bi. waaw nit ñi buñ ngoonee ñu mën a am luñ dogoo. dëkk bi Sénégal nag lépp ña koy yokk. yokk na réew mi. wallaay lenn doo nga fi normal. mooy la mooy salaire ministère yi oto yi ministère yi kër ministère yi ak conseil euh, salle bi ñuy defee euh, salle yi ñuy def ak seen salle yooyu ñuy defee conseil théâtre ministère yooyu ñu def ak yooyu doo moo fi normal. Hmm. voilà. loolu dong mo mo mooy loo xam ne jaar na fi yoon leneen loo mën a jël. Mhm. ci réew mii te aw ab sénégalais di ko soxla boo demee fekk ca jafe-jafe yoo xamante ne bu la ko doon wax doo ko gëm loolu mooy dëgg. dëgg la nag ñi ko wër nii. Mhm. ñi ko wër nii. Mhm. ñoo koy yàqal. ñoo koy yàqal damay nit bu fekkente ne du la wax lu yàqu. dégg nga moom ci boppam du la wax lu yàqu. te du la bàyyi nga gisal sa bopp lu yàqu. te du bàyyi kenn wax la lu yàqu. loo yàqule moo la ko yàqal hmm. te ñu ànd ak Macky Sall du àdduna du yàgg bañ ko ne réew maa ngi yàqu hmm. waaw at bu demoon Pikine mu wóor Macky ne leen Macky Sall Pikine la jëm daw nañ mbedd ma mu war a jaar damañ ko pentu karo ko hmm. dagg garab ya defar tali ba sëkk mbedd yi bale ko ba mu rafet pour Macky sàll bu ñëwee ba mu gis lu yàqu moom bu demee ba Cheikh Baara wala Sanjo gu yëg ne kat ñii waxuñu Macky Sall li yàqu te wanuñu ko ko xaaral ma wax ko man suñ koy wax ñi dem ci noppam ne ko dalaa bañ da ko war a jàpp tëj ko dangaa mm-hmm. war a wax ak moom démb démb donc mm-hmm. am na koo xam ne Instagram la bind Macky Sall xaw ma Macky liiragun na ko xaw ma liiragun ndax ba mu koy bind guddi na mm-hmm. naan ko waxal ak baaram mii wala nga nga jàmmarloo ak moom hmm? waaw te kooka di la ko wax wallahi post bi nga ko jox dong nga tax soo ko dàqoon tey tey tey tey tey waaw fu ma fu maanaam moo la moo may mu sànni lay xeer nit nag bu fekkente ne maanaam teraangaa tax xasu la waaw bu lay digal lu baax bu ko def bu lay hmm. digal naan la bu lay digal di la songaloo nit bu ko def waaw te nag loolu moom dafa da ko da nga war a xamal sa bopp yow. Mm. bëri na ci ñoo xamante ne xaw ma dañ laa soxore xaw ma waaye am na bis bu nekk ñi lay dugal ci di la dugal ci jëw yoo xamante ne. Mm-hmm. wóor na leen amul benn njariñ. waaw fii kenn xasu fi kenn kenn saagawu fi kenn mais du nekk ci réew mii. Mm-hmm. mbir yi doxut ba noppi duñ ko wax ñun ñii di ko wax. Mm-hmm. yàllaa tax ñu di ko wax. ñoom ñoo ñu wër Macky Sall seeni poste tax. ñoom ñuy waxal nag Sall lu baax mm-hmm. képp kum ci jàpp ne mbëggee leen boole na ko dàq tey xool ba xam lu mu koy waxal waaw waaw dëgg la Cheikh Bara Ndiaye borom def gis macha allah li nga wax lu am solo la euh, parce que ñooñu seen intérêt rek mooy li nga xam ne moo leen ñor te defe naa ni président Macky Sall bu loolu doon déglu wala muy bàyyi xel ci yu mel noonu ci comme ñenn ñi liñ koy wax ci dëgg gi je pense que ni kon fi mu toll nii réew mi fu mu ci génn danañ ko tàccu Cheikh Bara dañuy ñëw ci Moustapha Diakhaté ci wàllu dàq googu sax moom moom moom moom moom moom moom ku yëngu mën a dàq leen ko euh, nee na waat kii nga xam ni kii moom yax capitaine kii Touré nañ ko dàq parce que nag mba Baba Girassi dafa def loo xam kii Girassi dafa def loo xamante ni bii dem jël ko muy jàngal ay gone waaw euh, fële te dégg nga maam euh, Assane Mesel nee na kii ab nettalikat la te ab nettalikat kenn waru koo jël muy jàngal gone yi donc noo jàngatee li nga xamante ni moom la Moustapha Diakhaté wax noonu ak la ca Assane yokk ne nettalikat la. waaw maanaam Moustapha Diakhaté loolu sax day sopp rek ci lii ma doon wax. waaw ku mel na Macky Sall bu seetee ku mel ne Moustapha Diakhaté idée yi mu am. waaw ak taxawaay yi muy am. Mm. ba noppi ñu ne mas naa dëkk ci nopp président. Mm. war ngaa xam ne président kon yàgg naa def jëya <laughs> yàgg na koo def. <laughs> Moustapha ma moytul Macky Sall. wallaahi moytul moytul gaañoo ñu ci sa wet. nga xam ne ku jóg ñu ne la ruuxal. waaw te bu tàngee ñu daw gis nga koo xam ne bu neexee nga ñëw bu bu tàngee nga bu tàngee nga daw. Mm-hmm. ku la am amul ku la ñàkk ñàkkut. Mm-hmm. maanaam am la amoo kenn. Ah. ku la ñàkk ñàkkut kenn. loolu dafa bari ci ñii nga xam ne dañuy wër buur. Mm-hmm. am na ñi ñoo xam ne fas yéene nooy wënuñoo ñàq. ba jàng jotee jàngiwuñ bu liggéey jotee liggéeyuñ. wër di coow fuñ seen teraanga nag danañ wax ba mos. <laughs> moo xam dañuy wax lu baax ba mos ci wala ñu lay xas ba mos ci <laughs> ñooña nag danañ la fekk nga ruux loola ngor gor soo xamante ne boo boo ko yëgoon doo ko ruux ndax Moustapha Diakhaté mii keroog ba muy taxaw naan la dàq ko dàqal Sonko waaw jële ko fi mu ne mhm. loolu Amadou Ba léegi ñu wax ak moom waaw booba boo déggul woon am boo déggul woon Moustapha Diakhaté mhm. mën naa am lii tey nga nekk ak Sonko mën naa am doo ci nekk waaw te Moustapha Diakhaté dem yëy sa nopp bi ba indil la ci ba indil la yii tey ñu ngi continuer nag di yëy sa yii wax ndax am na nit ñoo xam ne moom yàqu dong lañu def te lu yàq lañ mën a wax mm-hmm. sa te yow sax xam nga ko am na nit ñoo xam ne fii ci réew mi waaw saa bu defar jotee kenn du leen dégg mm-hmm. waaye saa bu yàq jotee fu nekk ñu woo leen ni leen ñëw leen seen liggéey ñëw na waaw dëgg la ñooñu nag nit bu dee kilifa nga dañ koy xam te di leen moytu mm-hmm. nit ñi bañuñu la ba fal la fi nga ne dañ laa bëgg ba fal la soo demee nag ba kuy waxati ñeneen sam noonu la war ngaa xam ba xam kon yow loola nit ñi noonoo Mm-hmm. ndax koo xam ne dañ laa bëggoon ba jox la suñu réew mi waaw te ku solati kàpp koppati ci télé bi rek ñu ne sab noona sab noona sab noona mm-hmm. sëñ sëriñ bu wax mécanicien bu wax ko wax ñu ne kee da laa bañ bu mm-hmm. yàggee day mel ne nit ñi dañ laa bañ ba fal la te laa bëggoon ba fal la waaw voilà Jaxate euh, nag waaw maanaam man damay wax ne moo capitaine Touré dañoo bokkoon ab euh, classe far capitaine Touré armée bàyyi ko fa mu mer mm. waaw noonu lu mu nekkee daa bokk ci groupe yi nga xam ne ñoom dañoo doon liggéey Mm-hmm. ci réew mi. waaw ñu dàq leen. Mm-hmm. nu bokk toog di naan ataaya. Mm-hmm. di wër internet yeeg télé yi di coow. capitaine Touré Moustapha Diakhaté xam naa keroog bi mu déggee ñu ne dàq nañ ko dana sama bëkki ba màtt na ko kon am naa ko may gunge ci télé yi. yàlla dof nag capitaine Touré mu amul idée boobu amaat liggéeyal dem dem amaat beneen liggéeyam. dem liggéeyi. Mm-hmm. Moustapha Diakhaté nag loolu lay kaas mooy lu tax muy liggéey te daf ko def dima dafa ko def diffamation mooy mm. daf ne capitaine Touré traître la waaw waaw waaw te capitaine Touré yoon mi ngi atte dossier am ñii pare ma nga cour suprême mm-hmm. yoon atteegul ne capitaine Touré li koy toppe moo ko def wala defu ko mm-hmm. Moustapha Diakhaté moom atte na capitaine Touré waaw atte na ko maanaam daan ko ba tàmbalee commentaire daan bi waaw loolu nag moom lu kenn xamut la te Moustapha li mu waroon a def mooy bu fekkoonte ne foofa daa desub classe bu ñu mën a jàngalee. Mhm. nu woo ko mu dem fa di jàngale. Moussa Diakhaté lii muy def moom du liggéey ndax mhm. wax ci télé yi daanaka moom dong ko xam. ndax mhm. xamut li muy wax kenn mën naa joxe cours yu mag ci mer moom. mer waaw mer moom mën na cee jàngale lu bari. mer nan lay tàng xol. ah moom day mer dem di Moussa. Moussa kay mer moom mën na cee joxe cours bu yaatoo yaatoo yaatoo. man de élèves yooyu yaa yërëm tàng xol. mer daal mu mën na koo jàngal nit ñi. bu fekkee foofa Moustapha Guirassy am na fa euh, ku kuur bu mer mu woo ko mu koy jàngale. <laughs> parce que yow mënu hmm. nekk fii. Hmm. politikoo. waaw jàngale woo. Hmm. bayoo jaayoob ceeb ba noppi sëñ bi nekk fi. yow capitaine Touré. Euh, nu mu tuddati Moustapha Guirassy. waaw boo waxu ah, ah, bu ñu waxul ci capitaine Touré sax Moustapha Guirassy. ci boppam moom lu mu dee dee dee maanaam. ministre la. nekk na fi lii nekk na fi député nekk na fi nangam mais lu mu néew néew. Mhm. nekk na maire maanaam lépp lu ñuy falaate ci réew mi lu dul président falu na ko. waaw boole ceeg am jom yi liggéey ba am ab ab école bay jëlaate. Mhm. moom kay naa am jom yi moom moom liggéey ba am ñu muy jël. Mhm. dëgg la waaye bëgg a jël àdduna lépp def ko muy commentaire. waaw loolu mënta nekk. waaw dégg nga. Moustapha moom wax dëgg yàlla man damaa dem ba ma nga xam ne da xool ba xam moom dafa am dafa mel ne parce que lépp jóge ci Ousmane Sonko. wala ko laal. maanaam bu dee dëgg it xoolul dëgg gi moom ci ki mu jógee lay xool. Hmm. lu jëm ci Ousmane ko lu mu metti metti metti. Hmm. maanaam xoolul mbir mi moom ci kam jëm la xool. Hmm. fii ne capitaine Touré jàpp gum jàpp ne am nay relation Ousmane ko doo nga tax fii ne mu naan dàq leen ko. waaw waaye koo xam ne boo ko dàqee daa am doom. am jabar am am yi bokk. war leen a dundal nga neen du fi liggéeyee kooku loolu loolu loolu en la du dara. Mhm. dàq nañ ko capitaine Touré. direction Moustapha Diakhaté dàqul na ko kon. waaw d' accord loolu mën naa nekk man yëgaguma ko. capitaine moo ko posté moom. waaw d' man mm. loolu yëguma ko. Mm. waaye en tout cas lu mën a nekk. waaw man. Mm-hmm. man mm-hmm. man. Mm-hmm. maa la wax fii. waaw capitaine Touré dina nekk général. ah ci Sénégal gii. bu dee ku bu fekkente ne daa am ñu seen xol yi bon. waaw ah? dina nekk général. billaahi dina ko nekk. capitaine toure dina nekk général fii ci senegal ah waaw ku muy bon sa xol nag. bay boo nga teel a defaru bu jotee nga naan pétrole de waaye dina am. <laughs> jërëjëf Cheikh Bara waaw Cheikh Bara président de la république def na jaloore ginnaaw moom it aussi tamit bi mu jëlee ñi nga xamante ni bii macha allah seen taxawaay ci réew mi am na solo seen liggéey. nekk liggéey boo xam ne liggéey bu rëy la mu décorer leen ku ci mel ni Moustapha ñas mu décorer le président Moustapha Niass décorer sa Seck ci liggéey bu rëy bi nga xam ne moom lay amal waaye it daal di décorer Aminata Mbengue Ndiaye décorer Pape Diop président ni nga xam noonu la ñoo ñooñu nga xam ne mooy les quatre héros du pays daal di leen décorer noo jàngatee loolu décor <coughs> euh, yi nag. Hmm. ay politiciens la décoré. sooy bu lu mu tegee ni loxo mel ni ko jaaxle ci décoré. waaw décoré daal. waaw ay la Macky Sall décoré. ay politiciens. ah ndax wax nag. Hmm. dafa am loo xam ne seet naa ko fukki yoon ak juróom waaye looloo li am moom. muy mooy amul bëggante. Hmm. soxlante la. Hmm. politique. amul bëggante. soxla soxlante la. politicien ak politicien. waaw sequñu bëggante. soxlante lañ am. dañuy soxlante bu ngeen soxlantee da ngeen di ànd bu soxla ba jeexee bëggante gi mënut a téye diggante bi. Mm-hmm. da ngay gis ñaari politiciens yi tuddante doom mayante jabar def nangam. Mm-hmm. mais bu soxlante gi jeexee. tudde mm-hmm. doom yeeg yooyu yëpp mënut a téye relation bi. du amul bëggante soxlante la. loolu moom lu ma gis la léegi nag mag Sall kon ñii mu taxawaloon di leen takkal ay médailles. waaw jàpp naa ne soxla. la am ci ñoom moo tax mu takkal leen médaille yi. médaille yooyu nag jàpp ma ne médaille la man li ma ko jàpp mooy. par exemple xarum tabaski xarum. sa boo amee xarum tabaski ba noppi maanaam ba mu wóor na la xar mi sam xara waaw ndomba googu nga koy takk takkal ci baatam lu mhm. caagi ne bëgg mu mucc ci tabaski gee tax hmm. ndomba gi pour lan ndomba gi pour mën koo xàmmee bu tabaski gee nga tabaskeeku la waaw kon nit nit mën xàmmee xar mi waaw <laughs> ba du réer <laughs> ba du réer ci gént ga <laughs> jëndum xarum tabaski ba noppi maanaam jënd ndomba te nga ko takkal waaw bëggoo mu mucc ci tabaski ji de nag góoba nga xàmmee pour tabaskee ko pour tabaskee ko maki nag waaw da doon xàmmee gars yi pour tabaskee leen ah fu mu leen tabaskee parce que waaw ay élection mooy bëgg a am deux mille dix ci ci weer wii ñu jëm waaw weer wee weer wii ñu jëm dañoo war a defar liste yi waaw Macky xam na ne APR doxatut kii AFP doxatut waaw xam na ne réew mi doxatut mhm. xam na ne PS doxatut mhm. xam na ne Pape Diop it doxatut waaw mu xam ne sédd leen ay post yu baax moom erreur la mhm. comme nag damaa nar a nangu la ma leen joxoon lépp mhm. xaaral ma jël sama sama épingle ak sama sagar mhm. woo leen naxe leen ne leen kaay ma décorer leen noonu la dem <laughs> parce que man ku koo xam ne daa wër ba ñëw ak ñu wor ba ñëw ku ku xam nga sax lan moo ko la ku wër ba ñëw ak ku wor ba ñëw ak ku wor ba ñëw lu ci jar décorer laa gisu waaw wër ba ñëw ak wër ba ñëw Pape Diop moom daa wër dem PDS jaar ko fe jaar ko bërki démb gis nga ko moo dajale waaye yeewi ne leen sama kër defe fa ensemble defe fa ci réunion bi hmm. maanaam daa wër ba teew ba ñëw waaw Idi moom daa wor ba ñëw waaw léegi ñooñu lu jar décorer tey dëggoon naa ñu taxaw bu ñu koy décorer lii la def moo tax ñu ko wax hmm. ndax man ñeent ñu doon décorer gisuma ji ko ci jar décorer Idrissa hmm. parce que ba bàyyi ko la waaw waaw jar na décorer waaw loolu daal laa xam ci moom waaw loolu jar na lay koore euh, euh, Pape Diop mhm. moom daa xamut fu mu jëm rek wër Macky Sall mën naan sax na suba nga gisaat ko mu réunion waag te gars yi waaw xamut fu mu jëm dëgg yàlla en matière de fu muy taxaw ba noppi nga koy décorer mhm. loolu war war nañoo wax lu nekk lu muy jariñ mhm. Aminata Mbengue Ndiaye moom daa defut waaw dindiwut. ndax moom daa fa lu falu lu maanaam lim yor. Mhm. fa mu taxaw. waaw tanoora dee rek mu ñëw yor ko. waaw maanaam moom defut dindiwut ba noppi ñu koy ñu naan dañ koy décorer. loolu war nañ koo mhm. xool ba xam. Mhm. bu dee Moustapha Niass nag. waaw maanaam fii mu toll nii. maanaam ku nit maanaam ku àdduna bàyyi la te yàlla soxlaa bu ko. ku a ah? àdduna bàyyi na ko yàlla soxlaa bu ko. waaw te am na foofu keroog fan biñ ko décorer. waaw avant muy jóg décorer bi moom moo njëkk a gedd wadd moom. maanaam décoré bi sax d'accord ak moom. médaille ba médaille bi. <laughs> médaille baa wat fi mu toog seetaanal photo yi. dañ ko décoré décoré bi daa gën dem. décoré bi ne naa ne put. décoré bi wadd. daa wadd wadd fañ ko fañ ko décoré. Mhm. foofa la ruuse wadd moom. d'accord waaw parce que Moussa Wade boobu moo weesu fu ñu koy décoré ak yooyu jeexal na maanaam. waaw waaw adduna bàyyi. maanaam nekk na ci adduna ba adduna bàyyi. médaille bee mer. te yàlla soxlaagu ko. Mhm. kooku nag boo koy décoré. <laughs> médaille bu mer. waaye li wóor te wér mooy bekkoore yii <laughs> Moussa Moustapha Diakhaté eh, kii Moustapha Niass laay wax Idrissa Seck ñoom PS ak Pape Diop mm-hmm. na leen wóor ne décoré bi leen doo nga lay firi mooy noonu leen am poste yu baax ci liste bi Macky yi defar. Hmm. yuuxu yi ngeen nar a yuuxu nag ak nar a baax ñu naan coalition baa ngay toj. waaw loolu lay bañ moo tax mu ne xaaral ma teel leen a décorer. d'accord waaye bu mu leen nax tijji leen seen bëri bu leen bëggee utiliser lànk leen. Hmm. jërëjëf Cheikh Bara hmm. Cheikh Bara fi mu toll nii euh, cinq minutes a des te gars yi war nañoo ñëw. Euh, dañuy profité nga daal de def joxe programme bi. parce que gars yi comme que dañu war a. programme bi dañu war a décorer waaw yow. sabar tëjee. Tandiou may ñu waaw. Eh, ah. de ko eh, nu tuddati programme bi eh, kiiwul mooy ñun ci faj la ñuy yëngatu muy affaire mm-hmm. ak city mm-hmm. ak estomac. Mm-hmm. ak diabète. ak tension. ballottement. biir buy jooy di def gelaw. ndigg luy metti ñi dem toilette nga xam ne da ngay toog ay ñetti fan ñeenti fan doo dem toilette. Mm-hmm. wala ngay dem toilette air rek di génn. Mm-hmm. wala ngay doo wala ngay sëy di gaaw a pare. wala mm-hmm. booy sëy. sëy ba du yàgg. waaw wala nga asma asma dañ koy faj ba mu wér. jabet euh, am nañ ci ay traitement yoo xam ne ci koor gi euh, gratuite la. soo ko dee jël lu la neex lekkal lu la neex naanal sukkar si du yéeg. waaw bari na fii Sénégal gi kilifa yoo xamante ne. kilifa. dem nañ fu nekk ci àdduna te fi mu ne nii sama garab la ñuy jël daara. Mm-hmm. boo boo leen gisee duñ jeex duñ def dara duñ am benn effet mm-hmm. macha allah euh, prostate kasaalika léegi nag am nañ cabinet bu nekk mm-hmm. Touba boo xam ne nii ma ko waxee noonu lañ koy faje foofa euh, mooy euh, Touba ca Gédé wetu kër sëñ Bass Abdou Khadir waaw boo fa demee sama rakk nga fay fekk numéro mooy soixante dix huit cent quarante et un cinquante cinq vingt deux soixante dix huit cent quarante et un 55 22. numéro boobu il faut nga envoyé ñu ko ñu affiché ñu koy affiché 78 141 55 22 su ngeen ko wootee rek ku nekk Touba nag boo demee mm. mën ngaa dem léegi na en ah, dehors nag faj mii mm-hmm. man damay def ay safab sangat mm-hmm. sangat bayre mm-hmm. ubbeer muslaay yu mel noonu mooy sunguf waaw sangati sungufi sungufi njare ca ngaayeen njare yoo xam ne boo ko sangoo moom boo sangoo moom bu soobee yàlla danga nga gis ubbiku gu wér ci sa yaram macha di am xaalis sa téléphone di sonné <laughs> bu dee jigéen la nit ñi bëgg la affaire toj ay liggéey yooyu yëpp boo hmm. sangatoo day dindi cet day toj liggéey day toj liggéey macha allah dañuy sang dañuy def ay jaaroog ay ndombaak ay hmm. euh, yooyu noonu sëriñ si def waaw te dañuy faj ay rab rab aussi hmm. rab yi tamit spécial lañ koy faje mooy benn fan ngay ñëw ñu gise ñu defar la ñaan sangat la dindi rab yi mu dem incha rab yi ak nu la mën a def léegi nag bu dee nag affaire sangat yii amul Touba Touba moom garab am pajoo fa am waaw bu dee nag sangat lu jëm ci wàllu ubbiku mm. bayre mm. musulaay mm. yooyu il faut da ngay ñëw fii ci man nga ah. gis ma ma faj ko bu dee rab yi par altine lañ koy faj altine da ngay woote téléphone ne am jafe-jafe rab damaa bëgg jël contact ñu jox la ko parce que vingt personnes la ñuy jël par altine mm-hmm. bu dee ajjuma waaw boo ñëwee Tëngéej ci sëñ Mansour tribune su 48 foofa la ñuy faye suba ku fa ñëw incha allah da ñu fa fekk wala nga ñëw kër Pam Ndiaye coppet nga laaj kër sëñ Baara yeneen bis ñu ngi asalem 2 ginnaaw école Madiaye Sall. d' accord numéro téléphone Cheikh Bara Ndiaye di 77 610 81 81 77 610 81 81 sa aajo faju ci kàttanu borom bi subhanahu wa kon euh, bétti dama lay jox. waaw daal di annoncé waa ñu jaajëfal leen bu baax a baax Cheikh Bara Ndiaye di ci nuyu Baye Mbaye bu baax a baax euh, sama xarit la woon mais banaa ko daal bés ni bi démb. voilà léegi nag euh, fans club groupe Walfadjri wala Afagwa dañu fi teew am ñoo xamante ni dañ leen a sargal pour service rendu au groupe Walfadjri ak loyauté ak fidélité.